sànku na ndax jaam li tax yàlla bind ko mooy mu xam ko su fekkee dund nga ba sa dund jeex te xam yàlla googu xeggoo ca yow sa dund bi mu ngi mel ne xamul benn njariñ ndax li taxoon yàlla bind la dëgg-dëgg xeggoo fa jaam xam yàlla rek la ko yàlla di doyee loolu la loolu la di wax wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa li yaabuduuni binduma nit ak jinne lu mooy ñu jaamu jaamu nag mënul ànd ak bokkaale jaamu mënul ànd ak kon balaa ngay jaamu foo nga wéetal yàlla yàlla nag mënoo ko wéetal te xamoo ko kon laay ji rek wane na ne jaamu googu liñ ci na moom mooy ñu xam ko ndax da xam ba pare door a mën a door a mën a jaamu koo xamut wéetaloo ko doo ko mën a jaamu li yàlla soxla ci jaam bi mooy jaam bi xam ko jege ko di ko wéetal moo al alquran wax ne maa uridu minhum min rizqin وما أريد أن يطعمون إن الله هو razaqu dul quwwatil matin yàlla buur la buur yi ñett ñoo koy ñoo leen di wër benn mooy ñoo xam ne danañ la wutali wërsëg yokk sa koom-koom ñaareel ba mooy ñoo xam ne lay toggal di la lexal ba mooy ñu nekk ak yow rek dégg nga xamuñ lenn soxla lu may di la yàlla nag dàqal la boppam ñaari kuréel ya mu ne soxla ku ko wutali wërsëg soxlawul ku ko leyal kon nga dégg ne kuréelu ñetteel ba la soxla mooy ñu nekk ak moom rek ñooñu ñu koy wéetal mooy ñu ko xam ñooñu la yàlla la yàlla soxla dégg nga kon jaam li tax yàlla bind ko mooy mu xam ko su ko amut lu mu mën a am rek mu mel ne xamut dara moom la gars yi wax ne ku xam yàlla ñàkkoo dara waaye ku ñàkk yàlla xamoo dara pourtant mën nga am leneen waaye boo ko tëkkaleeg xam yàlla moom du dara dégg aljana sax boo ko tëkkalee nga yàlla kooku mu ngi mel ne dara dafa ne xalaqtu bi naadal xalq bi mindeef li yaabuduuni ngir ñu jaamu ma yaani lum namm bi yaabuduuni ci ñu jaamu ma yaarifuuni mooy ñu xam ma yàlla nee na bind naa mbindeef yi pour ñu jaamu ma ibnu abbas ne lim namm ci jaamu ko mooy xam ko ndax kat doomu aadama balaa jaamu yàlla foo mu wéetal ko te mënoo wéetal xamut kon foo nga xam yàlla ba pare door koo mën a wéetal béyti bii nag du sukkandiku waaye pour wane ne ku xamul yàlla safara la jëm déedéet dundam sànku na lañu wax waaye waxuñ safara lañ jëm dégg nga yow mi am yàlla kay ki am aljana mu ngi mel ne xamul dara dafa perte rek loolu lay loolu lay tekki waaye tekkiwul ne safara la jëm ndax nit ñëw na wax yonent na ko su ma jaamu defee farata yi teguma si benn naafila ndax danaa dugg aljana mu ne ko waaw hmm? kon ku yam ci farata yi rek tegul ci naafila mën naa dugg aljana waaye nag am aljana ak am yàlla boo leen tëkkalee am aljana moom ak sànkute la du dara pour yow borom milliard borom yi junne wala borom yi million amul dara ci moom ku ñàkk la waaye waaye naa mu am mu mu nekk koomal ci ñeneen kon li tax yàlla bind jaami mooy ñu xam ko jaamu ko mënul nekk lu mooy ñu sellal ko sellal ko mënul nekk lu mooy nga wéetal ko loolu it mënul xam lu mooy nga xam ko kon xam yàlla mooy tax nga mën a sellal yàlla mooy tax nga mën a wéetal yàlla boo jaamu yàlla yàlla nangu ko boo xamul yàlla booy jaamu yàlla sa bakkan daf ciy dugg te nitu yàlla yi dañuy fexe ba booy jaamu yàlla sa bakkan bi sax génn ci moo tax ñu ne al ixlaasu ixraaju siwa fi muamalatika lil xaq wa nafsuka siwan sellal mooy nga génne leneen lu dul yàlla ci jëflante gi ngay jëflanteeg yàlla te sa bakkan bi leneen la moom la imaam bu sayri di ju ñu ne waraayaha وهي في الأعمال سائمة وإن هي هي استحلت المرعى فلا تصومي من بايل سبكا بلوكو نيخ مدف وهي جف جم نيخ ورق آيكو بو رفت لو أك جف نيخ لوكو نيار رك جم تلف چينيكو آيكو بوم كرف وطح نتل لنج بين واجو خم لفرم بو بتيلو تيميري بتيلو سانغا في رانغ الإسلام جابوكو متو جب بمدس بين بتيل بكن بنوكو يا جامبار يا غور يو يا nga yaa toj bitali yëpp ba mu des benn mu bàyyi fa benn boobu benn boobu bu ko tojoon ñu rey ko ndax lan ndax bakkan bi def cee dugg ba mu koy def defut ko ngir yàlla kon su ko defee na nga fexe ba génnee sa bakkan si jëflante gi ngay jëflante gi yàlla te loolu nag fekk yaa ngi xam leneen mënoo génne sa bopp wa arifu siwa laa yuxruju siwa ku xam leneen mënul génn leneen si jëflanteem digganteem ak boromam te foo nga xam yàlla pour door a mën a yegg ci maqaama boobu ibnu ataay day wax ne bokk na ci màndargaay wakiilu ci jëf nga mooy yàlla naagu maanaam dangay ñàkk yaakaar soo defee bakkaar loolu dafay wane ne yow da nga yaakaar ne sa jaamu yàlla yi moo tax yàlla di la jox yi mu lay jox xolo ñoom dañ lay génnee ba génnee la ci yaakaar sa jëf luñ la yóbbu yaakaar yàlla rek duñ la génne ci ne yow yaa jaamu yàlla yàllaa tax ngay def déedéet dañ lay génne ba génne wàll la ci yëg gi nga yëg ne yaay def li ma la waxoon ci dar yu weesu rek ne la sa loxo bi bu jógee moom yëgul ne sax moo jug yow la yow la rek la askanee jug gi noonu lañ mel yàlla jàpp nañ ne jëf yàlla yuy feeñ ci ñoom rek la ñoom duñ ci dara duñ gis seen bopp ci dara foofu nag mënoo faa yegg yaa ngi xam leneen moo tax kon li yàlla bëgg ci yow mooy nga xam ko doomu aadama ne bañ juddoo ci xam yàlla googu lañ judd loolu la yonentu wax ku judd yaa ngi juddu ci lislaam kooku yonentu ne nekk mu ngi ci lislaam julliwut xoorut joxul azaka ajul màkk tuddul ñaari baat yi ci liñ xam ponk lislaam yi di ci dara waaye mu ngi ci mu ngi ci lislaam kon ci lu nekk ci xam yàlla ak wéetal ko loolu mooy lislaam ba nga demee ba fàtte nag sëriñ la teg ay jëf yu métti pour raxas sa xol ak sa ruuxu ak sa bakkan ba nga mën a delluwaat ci cosaan comme ku feebar rek ñu di la garab yi lay jox man naa la xari waaye ñoo bëgg nga delluwaat ci wér gi nga nekkee woon naka noonu it euh, loolu rek la ay farata yoo xam ne nii pour raxas sa xol ba nga delluwaat ci xam yàlla gi nga xam ne moom nga judduwaale woon gannaaw ko ñu indi tariqa muy ay naafila yoo xam ne dana layee ngi sa xol bañ man cee yekk ñama maarifatu billaahi ñama xam yàlla gannaaw nag buñ layee ngee sa xol ba pare su ko defee ñu def xam yàlla sa xol <clears throat> farata yi mooy raxas xol bi ndax xol bi dafa tilim naafile yi moo koy layange su ko defee nag ñu yekk ci xam ndabal xam ñemal xam yàlla loolu moo tax farata yi jug moo tax tarixa yi jug moo tax lépp jug jéem a xam sa borom yow nag booy julli di julli di woor di joxe asaka di def lu ne te xam résultat xam yàlla googu feeñu ci yow la nga xam boo ko comparé ki xam yàlla la ma am yow amoo dara xalaqtu bin naasal xalqi min dee fii li yaabudu yi ngir ñu jaamu ma yaani lum na mu bi yabuduni ci ñu jaamu ma yaarifuni mooy ñu xam ma wetal ma su ko defee di ma fuuglu xam nga jaamu yàlla mooy jox teggin feeñ waay yàlla yi rek yow daal da nga xool rek gis yàlla di feeñal lu ko neex lu mu feeñal rek nga xool ci sharia mooy ne lii laa laaj lii laa la laaj ci tëjëliyaat bi tëjëli bii maanaam lii ma feeñal lii laa la ci laaj nga def lool buñ noddee rek yàlla nga dem julli ji daal laaj nga dem julli ñu tooñ la yàlla ne la nga baale yàlla laaj nga baale ñu sàcc yàlla ne la loxo bi loolu lañ laaj nga daggal loxo bi yow nga fi nekkee kooku mooy ki nga xam ne ni moom mu ngi jëf gaa waaye gisul leneen te it lu feeñ rek la yàlla laaj ci loolu loolu lay def du yëg ne sax moom mooy def dafa yëg ne yàlla rek moom mooy def def jëf ji loolu nag yombut dégg nga loolu mooy kii laa taalu bul gàttañ lu jox dëkk sa góorgóorlu bi nay ne ci am xam yàlla isan kon tara da nga gis ajiba qurbi rahmaani kimtaanu jege yàlla bul sàggan mukk ci jéem a am xam yàlla loo man ci góorgóorlu pour am xam yàlla rek nanga ko def soo amee yitte boobu danga nga gis kimtaanu jege yàlla mooy jege jege jege yàlla goo xam ne nii mënoo yegg ci moom yàlla ku yéeme la ndax noo ko gën a jege gën koo bëgg noo ko gën a bëggee gën koo wuut te loo ko jege jege ak loo ko wut wut mënoo yegg ci moom mënoo yegg ci moom ndax balaa ngaa yegg ci yàlla rek mu ñàkk loola yàlla balaa ngaa yegg ci moom mu ñàkk loola moom la bàyyi di wax sakirtu bi xamrin in hamamtu bi shurbihi mandi naa si sàngara ba ma ko bëggee naan dafa bëgg naan sàngara si mandi maanaam sàngaraay xam yàlla boo ko boo yittoo naan ko rek ci ngay mandi hmm? sàngaraay xam yàlla boo yittoo naan ko ci ngay mandi yàlla balaa nga yegg ci moom mu effacé la dégg nga moo tax waa ji waxoon ne min al ajaayibi wal ajaayibu jëmmatun qurbul habibi wa ma ilayhi al wasulu bokk na ci kéemtaan yi te kéemtaan yi bari nañ jege soppi ba pare te mënu cee yegg yàlla noonu la mel mun na bàyyi di wax ne aarifu ne li ñu wut duñ ko am bu mukk dégg nga ndax yàlla du ndox moo xam ne da ngay ñëw naan ko wala muy jëmm joo xam ne mën ngaa xegg ci moom balaa ngay xegg ñàkk waaw waaye gëlëm googu ak ñàkk jot googu mooy jëmmi jot ko te ci ngëlmaane googu ci la dund yi tee nekk ñëpp nag loolu lañ xam ci yàlla doyam ngëlmaane doyam amul kenn ku mën a wax ne maa ngi nii yegg naa ci yàlla waaye ndoyam ngëlmaane rek waaw balaa nga xegg ñàkk di bëgg xegg di ñàkk saa yoo bëggee xegg doo fekk dara loolu fa la ñëpp yam hmm? yow boo góorgóorlu da nga yegg ci kimtaan googu da yegg ci kéemtaan googu yasaru dana feeñ boo góorgóorloo pour jéem a xam yàlla da nga dem ba nga xam ne yasaru dana feeñ moom yàlla min cheyin jugee ci dara ala cheyin ci kaw dara la daa fa dara wa qablahu njëkk dara ak njëkk dara wa baadahu gannaaw ga sarmada dappetu dappetu na waxi bàyyi du luñ mën firi waaye ku nekk la ci yàlla jox rek loolu ngay loolu wax dégg nga soo yittewoo xam yàlla danga dem ba gis kimtaanu bëgg yegg ci yàlla te mënoo ci yegg gisoo leneen lu dul moom te gisoo ko waaw yow loo xool moom la te yow koo gis mu gën laa jege ba laa jege sa bopp te mënoo faa yegg loolu yéeme de mm-hmm. qurbul xabibi wa ma ilayhi l wusul yaa ngi jege sopp bi te mënoo cee yegg hmm? loolu yittoo xam yàlla mooy tax nga dem ba mos loolu moom la yonent ci wax adduniyaa sijnul mu'min wa jannatul kaafir adduna aljanaay jullit la adduna eh, kasoog jullit la di aljanaab xéeféer mu'min foofu bàyyi nee aarif lañ ci sama ko xam yàlla ko xam yàlla dañ koo tëj ci àddina mënu yegg ci yàlla yegg ci yàlla kooku mënu koo am fii ci àddina ndax am na kiiraay gu dox si digganteem ak loolu waaw dana ko jege lool ba mënul gis leneen lu moom te xeggut fa ndax balaa mu faa xegg ñàkk kon moom àddina kasoom la dégg nga waaye nag soo góorgóorloo ci maqaam boobu di xuus da jeex ci yàlla ba ba nga xamee ne da gis ne yàlla mooy feeñ jugee ci dara ci kaw dara fa dara njëkk dara gannaaw gën mu dappetoo luy loolu bàyyi ci jawaay rasaayal wala neneen alamul xalq xalqun min shay'in la mindeef bu jugee ci dara loolu maqaama wilaaya mindeef la bu jugee ci dara amaa nubuwa mu ne xalqun min laa shay'in mindeef la bu jugee wu ci dara min laa shay'a jugee wu ci dara kon lan mooy xalqun min shay mooy wilaayatu mooy maqaama zaahir moom lay junne yazharu day feeñ min shay'in jugee ci dara anam yazharu day feeñ luy feeñ saahibul wilaaya te saahibu wilaaya mooy jëmmi wilaaya mooy moom mooy alamul xalq min shay'in jógee ci dara te mooy saahibu nubuwa te kooku mooy alamul arwaax moom la alquran di junñi awalam yaraw fi malakuuti samawaati wal ard wa maa xalaqa allaahu min shay xanaa xooluñ ci malakuutu asamaani juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar malakuutu samawaati wal ard kooku alamul xilaafa la junñi ak wa maa xalaqa allaahu min shay'in ak la yàlla bind mu jógee ci dara kooku mu ngi junj beneen alam mooy mooy alamu xalq kooku xalqun min shay'in amaa nubuwatu xalqun min laa shay foofu dara nekk fu moom fu mu jóge kon nag da nga dem ba xam ne yazharu day feeñ min shay'in jógee ci nubuwa ala shay'in ci kaw xilaafa la daa shay'in fa maqaama naasut wa qablahu ak njëkk sax shay'u di am te nubuwatu yonent bi mbir ma feeñ na fa waaye njëkk dara di am ndax moom mooy njëlbeenu shay moom dafa feeñ min qabli shay jugee ci loo xam ne dafa njëkk lépp ba pare nu bu wëttu feeñ wilaayatu feeñ jugee ci shay lépp ñëw daanu ci kaw shay waa yooyu yëpp nag yaa ngi leen xamee la daa shay in fa beneen mbir mooy ci naasut ci maqaam bi ñu nekk wa baadu gannaaw lii lépp nag sarmada dana dappetoo xam nga loolu tombe nag li yàlla di wax ne alaa ilallaahi tasirul umuur wa ilallaahi turjaul umuur mbir yëpp ci yàlla lay mujj mbir yëpp ci yàlla lay dellu tombe nag wa baadu sarmada mooy li bàyyi di junj ne bu demee ba xaqaayix yëpp jeex laaxiru rek di def tëjëli ndaw buur bu maye bi dana gis ay mayam du am kum ko jox ñu ne fii ci àdduna la waaye àdduna wëlli yàlla yaa ngi fa yàlla gis na ku may mayam gi ñu ne àllaaxira àllaaxira yonentoom fa nit ñu baax ñaa ngi fa yàlla gis na ku may mayam gi waaye bu demee ba la yàlla waxoon ne mooy aaxiru bu fi lépp jógee moom rek moo fi des bis demaat bañ delluwaat foofu du ma ci bu baax a baax buñ delluwaatee ci foofu abat dana nekk seetub azal la doon cosaan rek lay ñëpp di dund lépp dana delluwaat ci asalam ci azalam ci cosaanam su ko defee la nga xam ne ni balaa benn tëjali di am balaa benn mbindeef di am lafa nekkoon ñëpp doon ko dund dégg nga cosaan loolu gu seetlu googu loolu danañ fa delluwaat foofu na lay wax ne sarmada ba baax du gannaaw buñ ca azal nga xamee ne leneen nekkaatut fi li alquran wax kama badaakum taawuduuna ñëw na ni ngeen commencé woon noonu ngeen delloo li alquran wax alaa ilallaahi tasiru umur ñëw na su boobaa loolu moom sarmada <laughs> mooy dappitoo hmm? kon boo góor góorgóorloo ci jéem a xam yàlla maqaam yi da xam da gis ne dana feeñ si maqaamu zaahir min cheyin jugee si chey ala cheyin lépp dañuy ñëwaat si benn chey ci xilaaf la daa waaye yaa ngi koy fekk fa chey ca naasoot waaye wa qablahu feeñ na njëkk chey nu wëtu dafa feeñ min qabli chey jugee si loo xam ne njëkk na fi chey ndax nu bootu mooy chey bi kon lam feeñee moom du chey wu dara waaye wa baax nag gannaaw bu lii lépp delluwaatee ci azalam sarmala mbir mi dafay continuer dappetoo dama ne loolu tafsir la boo xam ne ni yëg-yëg loolu laa yëg ci bayt bi keneen mën na ko firee ne leen kat nga waxi bàyyi moom yàlla rek a xam dégg soo góorgóorloo ci jéem a xam sa borom da nga yegg foofu waaye boo boo deful loolu nag da ngay jeex ci àdduna gis nga ni taalibe di jeexee ci yàlla ba nga xamee ne moom mënul gis leneen lu mooy yàlla gis leneen lu dul yàlla sax daf koy jaaxal noonu lay nit di jeexee ci bëgg àddina ba mënul gis leneen lu yàlla moom dafa bu demee bu si bu yàggee yaakaar ne amut yàlla musal ci maqaam boobu ak xaal boobu ibnu ataala daan na wax ne man raa al kawna walam yara laa qablahu aw maahu aw baadahu faqad awazahu wujudul anwaar ku gis kawnu bi te gisoo yàlla ànd ak moom gisoo yàlla njëkk ko gisoo yàlla gannaaw ga yow leer yi jafe nañ la waaw am na ñoo xam ne ni luñ gis moom yàlla rek lañ gis bu ñu xool la ñuy gis waaye nag xam nañ ne dara du yàlla mhm. ñooñu moom gis nañ yàlla ànd ak lépp hmm? am na ñoo xam ne ni hmm, dañuy gis ne yàlla la gis ba pare ñu gis ne liikat kat jeexitu yàlla mu feeñ waaye yàlla moomu am ñoo xam ne bu ñu gisee jaam bi dañuy gis ki ko defar ki ko defar waaye yow gis nga gis nga jaam bi sa xel delluwut ci yàlla ba nga ñëwee gisoo yàlla door a gis ne moo bind jaam yi. ba nga gisee jaam it gisaaloo fa yàlla yow yow xamu amoo na wayen raxib te nga fi ziyaadi imaan ci yokku gëm yàlla fa tuub na nga na suuxan tuub gu sell di fan xaa nanga ci tofal ixsaanu rafetal nee na bu fekkee da bëgg sa gëm yàlla yokk na nga tuub gu sell goo xam ne da ci si yokk ixsaan mu di rafetal tuub nag ci amatu naas mooy génn ci bakkaar yi dem ci topp yàlla tuub ci ñu yàlla tànn mooy bàyyi giñ bàyyi luñ sopp def luñ sib tuub nag ci ñañ gën a tànn mooy ñoom bàyyi giñ bàyyi tuub bàyyi giñ bàyyi tuub mooy lan mooy ñoom yëguñ ni sax ñoom ñooy tuub ñoom dégg yëguñ ni sax ñoom ñooy tuub moom lay Cheikh Tidiane wax billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa ma balagtu maqaama maa ngi gën ci yàlla mi nga xam ne amul benn buur bu mooy moom man jotuma maqaama tuub jotuma ko ndax la moom yëgu ne moom mooy tuub wax naa la ni nga yëngalee sa cër yi te ñoom yëguñ ne def aarifuna billaah ñoom foofu la ñu yàlla ñoom xam nañ ne lépp yàlla koy def ñoom li ñu defuñ dara réew moo tax lu baax lu ñu askane ko yàlla kon na tuub tuub gu sell nga teg ci ihsaan ihsaan mooy rafetal rafetal mooy lan mooy saa su nekk del yëg yàlla ihsaan mooy ngay jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi koy gis loolu nag yëg-yëg la booy gis yàlla foo nga fàttali leen kon na nga rafetal ba saa su nekk yow del yëg sa borom di ko teewlu nga bokk ci ñi nga xam ne nii alladina hum ala salaatihim daayimuuna ñi nga xam ne seen jokkoo yàlla jokkoo gu sax la dara mu leen xiir yàlla dara mu leen mënu leen a fàttaloo yàlla ndax yàlla mu nekk lu nekk waru la ko mën a fàttaloo ñoom yàlla leen di fàttaloo lépp waaye ñoom dara du leen fàttaloo yàlla loolu mooy ihsaan nga dem ba saa su nekk yow doo fàtte yàlla heggal foofu gannaaw woo tuubee dégg laa dégg nga tabri danna bul bañ laa tubri danna bul bañ musliman julit laa tax dab bul mer illaa li xat ki shiraati lu mooy ñu xotti sharia al muhazzab bu sell bi bul bañ koo xam ne julit la ndax julit du bañ julit yéen bokk même parti yàlla ngeen liggéeyal waru a mën a bañante waaye bul mer lu mooy ñu xotti xaqi bu sell bi bu ñu wuteeg daal mën ngaa mer waaye bul mer ngir sa bakkan del meral shariatu waaye bul meral sa bakkan لازم نغا تقو قيام الليل نافله غدي جويع نغا قيفل معدا بير اكل اكل حلال لكل دغن اسير فلو سل اينن باتاي عد لي مال نانكو دل نافله غدي لا نافله غدي موي وار واي نار غور وي غور يالله يدي روانتي دنگا جولي غدي لير لا نيهال نيت كي دل قيفل سبير ndax bakkan bako yalla bindé daf ko wax man maay kan mu ne ko yow a yow mën mbugal ko indiwaat ko maay kan yow a yow mën man mu mbugalaat mujj ga yàlla xiifal ko ba yàlla xiifalee ne ko yow a kan mu ne ko yaay buur bu màgg bi maay sa jaam bu torox bi moo tax bakkan xiif rekk ci man dara boo ko bëggee yar nanga ko xiifal del lekk dagan ndax wax nañ ne wasab man chiita fa inna kala diinihi waaye wa kun kul ma chiita fa mislahu tafalu na nga ànd ak ku la neex mm. mu wàll la jikkoom waaye nag lekkal lu la neex lu mel ni li ngay lekk rek ngay def mm-hmm. booy lekk lu dagan di def lu baax booy lekk lu xaraam di def lu bon mm-hmm. yéen sax nettali na mm-hmm. waa joo xam ne mu ngi tukki cuxur pënd tàllal loxo yi naan yàlla yàlla may ma ci yéen nee na la muy lekk dafa xaraam la muy sol dafa xaraam lañ ko dundalee dafa xaraam kooku nan lañ ko nangu nangulee ñaan kon lekk lu bon dafay tax sax boo ñaanee yàlla yàlla du la nangul dafay tax nga lottu ci jëf lu baax kon dee lekk lu dagan soo bëggee mm, dimbali ko jaamu yàlla wanaa seex na nga laay biir ay ixwaana mbokk yi deel laay biir mbokk yi ndax diine laayante biir la dee leen wax lu baax dee leen tere lu bon was mut noppil ndax man samata najaa ku noppi mucc noppi xikma la waaye néew na ku koy def dégg nga ñu nit daal mën nañ koo euh, yëpp ngir kàddoom waaye nag kenn du la yëpp ndax ne da noppi dégg nga kon del noppi lu mooy nag wax jot da war a jàngale jàngale dëgg ji yow rek yaa mën a wax wax ko waaye daal bu wax warut noppi loolu la bëgg wax del bëri looy noppi baa danaa wax ne moom noppi gu yàgg xéem na ko ndax dafay tekki xam yàlla nee na xam yàlla du ay wax ju bari waaye xaal bi rek moo koy wane na fexe sa xaal wane ne yow ko xam yàlla kon deel bëri looy noppi làmmeñ yàlla daf koo bañ ba wutal ko ay garde corps muy bëñ ba pare wutal ko tuñ kaste ko dugal ko ca biir ngir wane ne balaa nga koo génne naka lu ko jar jar saaxib na nga ànd ak ahlal muruwaati ñooñ bañ ruus mhm. mu neen aqaari bi ci jegeñaale yi bay xarit say mbokk xoolal ñi am bañ ruus nga ànd ak ñoom ñuy sa xarit maanaam ñu am bañ ruus moo ñi nga xam ne jomm nañoo def yenn yi même bu dul ragal du dara dañ koo jomm def rek na nga ànd ak ñu mel noonu ñoo xam ne jomm nañoo def lu ñaaw yow it bu yàggee nga jomm def lu ñaaw mhm. ndax wal mar u في دين قرينه mu ngi ci diine xaritam alxamim xarit boo bu mu sopp ba nit xaritam bi mu bëgg lam nekk rek ci lay nekk in saalihan bu baaxee fa saalihun ku baax lay doon wa in bahim bu dee xaritam ba bàyyi ma la moom it bàyyi ma rek lay doon nit ku nekk ci diine xaritam bu baax boobu ci lay nekk manam nit ku nek diine xaritam bam mu ci lay nek bu sa xarit baxé nga bax bu fekke sa xarit dafa bon bu melni bayima na yàlla am na ñum xas inhum ila kal anaami ñum kum ay bayima yewit nga bon bu melni bayima rek kon del tan ay xarit tadakuril mizani del fàttaliku balaa si jëf ya xamal ne bis dana ñëw lépp lo mësa def ñu peese ko su lu baax dana diis gann ci kaw balaas ba ñu dugal laal jana su lu bon dafa oyof toll borom dugg safara yàlla insha allah musal yonentu jàngal nañu ne yomal xiyaamati nit dana ñëw du peese si yàlla lu toll ni mbagg yow ndax jëfam yëpp oyof te ci àddina fu mu naa nañu résidé loo pour bëgg koo gis nit ku màgg ku foor dana dee waaye peese wut ci yàlla lu toll ni mbagg yow te ci àdduna moom ñëpp daan régloo pour sax gis ko teg ku bët yàlla nañu yàlla may mucc nasru suhufi tasaare kaamil ya del fàttaliku bis bi nga xam ne yàlla ubbi na magasin yu jëf ya ku nekk sa téere bañ bindoon say jëf tasaaroo ñëwal si la mënoo rëcc foo mu dikkal la su fekkee ku baax nga rek sa loxo ndeyjoor rek ngay tàllal daal di ko jël kontaan bég nen xamoon naa ne bis bii dana ma dikkal sama coono yëpp mujj na nekk noflaay waaye su fekkee ku bon la dangay gis ñu jël loxob càmmooy ba bëtt ko ci biir ba mu dem ca gannaaw ga ñu jox ko téere ba mu di ko liir di jooy naan mm, yaa laytani dégg nga mm, maa adri ma lam adri walam adri maa xisaabiya yaa laytahaa kaanatil maa agni anni maaliya halakaani sultaaniya mu ne waay waay waay réglé gii ñu ma mooy réglé blan yellanti koon du ma sax dund yellanti koon ma nekk suuf sama alal jëriñut ma dara sama nguur gi ma xamoon yëpp sànku na tey su ko defee mu war a dugg safara muy rëccu del fàttaliku bis boobu nga xam ne loo jëf mu ngi ci kaamil boobu buy lu baax danañ la ko fay buy lu bon danañ la ko fay dee ko fàttaliku maa fil jaximi del fàttaliku la nekk ci jahannama mhm. min dawaamin asafi si sax ak njàqare yaa ngi fii di rey rek fàttaliku fàttalikul ne jëf yu bon yii jahannama la dugal njàqare gu sax gu dañ moo fa nekk muñal ci jaamu yàlla ndax boo muñee ci àddina muñ googu dana la jëriñ nga dugg aljana boo muñu ci àddina danga nga muñ lakk-lakk safara te du la jëriñ dara ñooñ safara buñ duggee safara danañ ne nañ muñ wala boog nañ jooy ndax waa aljana jooy yu bari moo leen taxoona dugg aljana ndax ñoom ci àddina dañoo ragaloon yàlla ba saaw su nekk ñu ngay jooy ndax xamuñ seen ëllëg ronkañ yooyu moo leen aljana ndax ronkoñ ñu tuuru ngir ragal yàlla bër yooyu yàlla du ko lakk su ko defee ñoom ñu yooyu junne at jariñul leen dara ñu ne nañ muñ waa aljana muñ moo leen dugaloon aljana ba jaamu yàlla ñu muñ junne at jariñul leen dara yàlla ne isbiru wala tasbiru sawaun alaykum bu leen neexee ngeen muñ wala ngeen ñàkk muñ moo am ci yéen la ngeen defoon dañ leen ko fay ba mat sëkk foo xam ne gu sax amul benn noflaay moo fa nekk ko fàttaliku bis boo ko te yow looloo nekk ca kanam rek dafa mel ni amoo xel kon del fàttaliku njàqare jahannama àddina lu métti métti dana am waxtu mu neexee dana am jamono ju mu neexee dana am ay bis yu muy neexee waaye safara moom bu méttee métti na dafay continuer dafay continuer kon muñal coonaay àddina ngir am bànneexu aljana boo muñul coonaay àddina nga am coonaay àddina am coonaay àllaaxira wa fil jinaani del fàttaliku ci aljane min xisaanil xuur yi sa jongoma yu rafet yi nga xam ne ni balaa ngay ñëw di dugg aljana boobu danañ la sang ci benn dex lépp luy jàngoro sa yaram dal di dañ doo daggati doo nàcceti doo feebarati doo tilimati nga naan lépp luy jàngoro sa biir dal di dañ doo tojal doo tuur ndox doo ñandu doo tafli doo ñaq amoo benn salte nga nekk nit ku sell ku rafet koo xam ni ku la xool rek da ngay rafet rafet ba mel ni dogitu bidd wala weer waa xuru ayni yaa ngi lay teeru nag dégg nga di kontaan di way ci dikkal gi nga leen dikkal yàlla jox la ay pale yoo xam ne yii wurus lañ ko tabaxee yii xaalis lañ ko tabaxee nga nekk nag ci teraangoo xam ne amut ak benn naqar àdduna loo mën a am ànd ak naqar waaye foofu moom boo xasee dugg aljana noflaay gu àndut ak benn naqar moom nga fay nekke nuuru ay na yaa ngi nii lu mu gàtt gàtt danga am lu ëpp fukki junne soxna te saa su nekk rek boo nekk ak benn soxna mu ngi mel ne yaa ngi nekk ak soxna yëpp yàlla di la indil xeeti meññeet yu neex yu rafet boo gis rek nga ne ah lii de moom mu la ma yàlla indiloon ci ci àddina nga ne pom la ndeke du pom waaye dafa niroog pom boo ko mosee rek xam ne moo dàq pom dex yi di la topp foo mën a jëm ci aljana dex yi mm, ndox la yii sàngara su neex soo xam ne du màndil yii lem la su neex yii ndox mu sell la su ko defee xéwal googu dee ko fàttaliku su boobaa xéwal àddina dana xeebu ci yow wax nañ ne àddina aljanaa yi jullit la di di di di di aljanaa xéeféer la di kasob julit maanaam lañ ca moom mooy jullit lu mën a am ci xéwal ci àddina boo ko tëkkalee xéwali àllaaxira dafa mel ni ci kaso la nekk waaye xéeféer lu mën a am ci àdduna ci xéwal ci ci nattu boo ko tëkkaleek tëkkalee mbugalam jahannama dafa mel ni fii xéwal la ci moom xéeféer bu nattoo lu nattoom rëy ko tëkkalee mbugal mañ ko xaaree safara jàppal ne fii mu nekk moom bi aljana la ci moom waaye julit xéwalam lu mu rëy rëy boo ko tëkkalee xéwali aljana dégg nga dégg nga dafa mel ni mosul am dara ci kaso la nekk aljana boo fay dugg benn duggin ñu cuub la ku la xool bu la xamoon ci àddina du la xàmmeeti ndax taar ba ndax rafet ga wujuhun yawma idin naadiratun ila rabbiha naadira yàlla nee na karam yi dafay nëttëx di xool seeni borom benn cuub buñ la laajee ndax mos ngaa am boo jëloon ki ëpp fitna ci àddina ñu dugal ko aljana yoon bu njëkk boo ko laajee ndax mos nga am naqar naa la déedéet waaye safara ki ëpp noflaay ci àdduna boo ko dugaloon safara benn cuubin nga laaj ko ndax mos nga am xéwal def naa la déet del fàttali ko aljana jooju maal jawaari ànd ak jéebéer yi nga xam ne ni ñooy ànd ak xóoru ay ni di leen liggéeyal lépp yaa ko moom maa xisaani duuri ànd ak kër yu nga xam na ni wurus yi wurus lañ ko defaree yi dégg nga yi ñu defaree ko xaalis nga nekk ci noflaay nekk ci ngërmaane yàlla di xaritu yàlla leer yàlla yi di wàcc ci yow bànneexi di wàcce waanut ak benn naqar del fàttaliku foofu foofu mooy dund ba moo tax yonent bi dégg nga ba mu gàddaayee dem Medina daf daan wax ne allahuma la aysha illa aysha al axira faxfir lil ansaari wal muhajira yàlla dund daal xamul lu may dund alaxira ndax fii moom àdduna gisut fi lu neex ndax banex ba deug deug yàlla ko dañ ci àllaaxira yonentu xam na ne fofu la dund ba nek motax tax mu ngi wax gaay ne njëkkalante len ci liggéeyal lu baax njëkkalante len ci wun njéggale yàlla ndax dund dëgg mooy dund àllaaxira yellante ko won bakkan yeb xam lolu su ko defé del fatali ko lolu nga ragal safara soosu waaye xemam aljana joju wa dum na nga sax ala mukaffirat zanbi ci way faari bakkaar del sax ci nga xamne da dafay faar say Bakkaar aakaduha ba ci gën a fare hmm. salaatu haadal xutbi mooy jullit bi la xutbu te mooy salaatul fatih hmm. hmm. moom boo ko boo ci jàngee benn rek faat na say bakkaar yëpp bàyyi ba muy liim fidaaw yi nee na benn salaatul fatih fidaaw la boo ko jàngee yéene ko yéene ci fidaaw sa bopp yàlla musal la safara benn salaatul fatih dégg nga min bokk na ci musabaatu asri fukki mbir la yoo xam ne bu nekk danañ ko jàng juróom-ñaari yoon ci ñaari tarix bi la bokk dee ko taqoog subaan si suba wa masan ak ngoon hikaayatul azaani ak nettali noddu ay dan ba tey zatti saa ngay borom ak roy deel nettali noddu roy ci yonent ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax moo ko santaane mhm. su ko defee loolu it ci li faar bàkkaar la bokk boo déggee nodd rek allahu akbar dégg nga yow waxal allahu akbar ashhadu an laa ilaaha illallaah nga wax ko bu yeggee ci eh, a an laa ilaaha illallaah ko baamu ñaari yoon nag eh, dégg nga bu ko baamu dégg nga mu ne eh, hayya ala salaati hayya ala falaahi loolu bu koy wax wax laa hawla wala quwwata illaa billaahi al aliyyil aziim bu ko defee nag bu ne laa allahu akbar nga ne allahu akbar mu laa ilaaha illallaah nga ne laa ilaaha illallaah nettali na du loolu ci fiqi danañ ko jàngale dafay far bakkaar an waaw azkaarin ak xeeti zikar atal yoo xam ne dikk nañ fil mazhabi ci yoon wi salaatuna ak suñu julli ala rafiil mansabi mansabi ci yonent bi nga xam ne mooy aji yëkkati ko daraja amna xeeti zikar yoo xam ne ñëw na ci tariqa bi yëpp dañuy faar bakkaar julli ci yonent bi nga xam ne nii moo gën a kawe ñëpp daraja ak ci noo ko mën a jullee rek moo xam salaatu ibrahim ibrahim la wala beneen julli la di bëri loo julli ci yonent dafay faar bakkaar salaatu tasbihin ak salaatu tasbih dafay faar bakkaar dégg nga julli la guñ xam wa tasbihun ak sabal kazaanako noonu di wax subhanallah dafay faar bakkaar tadabburul qur'aani ak setantal alquran bu ñuy jàng alquran nga di ko bàyyi xel sa xol di tooy ngay dund yàlla loolu dafay far bakkaar raa yi na nga sàmmanteeg almaxasa teggini jël sàmmanteeg teggini jàng alquran ak setantal alquran wala del sàmmanteeg dégg nga jikko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa rakaataani ak ñaar rakk xufeetan ci nëbbu nga jël ñaari rakk yoo xam ne da koo julli te kenn xamut ko dafay far bakkaar yonent gis na Bilaal ci aljana ko ci dugal. saa yu jàppoo rek dana julli ñaar rakka balaa njàppalee wow naqalul xutaa ak toxal jéego masaa masaajid jëm ci jàkka yu kafiru dafay faaral xataa ñaawteef booy dox jëm ci jàkka ja jéego boo séq yàlla faaral na ca bakkaar kon dox dem ci jàkka dafay faar bakkaar kaza naka noonu isbaaxul wuddu yi suural njàpp jàpp njàpp lu tooy xepp ba njàpp mat sëkk amul lenn lu manqué day tax yàlla far sa bakkaar waxut na nga xommat ama gumba gis gumba guy dem nga xommat ko xettali ko ba mu jëm fa mu yegg dafay faar bakkaar kazanaka noonu xadaawa xaajatin faj aajo jid yokk nañ ci yokku nañ ko ci sa mbokkam julit am aajo jàq lool nga dimbale ko ba aajoom boobu faj sa bakkaar faaru na dégg nga yàlla dana la génn it si njàqare yooyu waaddu mawjil bahri ak konte duusu géej yi fikratan ci xalaat ngay xalaat yàlla lu toll ni duus si géej gi dafay far bàkkaar wax nañ ne ku dem ci géej di wax di tud di kabaaral yàlla <laughs> dégg nga lu toll ni ñeen fukki yoon mu koy compter si duusi géej gi bu duusi géej jógee mu kabaar di di def loolu ba muy ñeen fukki yoon yàlla far bàkkaaram yëpp kon amaana loolu la ci namu amaana it xalaat xalaat yu bëri lu toll ni duusi géej gi la ci namu dafay far bàkkaar musaafatul ixwaani ak saafuwanteeg mbokk yi wanteek mbokk yi dafay far bàkkaar loolu nag dañ ñu bëri dañ yaakaar lu xeebu la waaye dem dajeeg mbokk yi na ngeen def yéen ci jàmm nangam nangam ku nekk sa xol sedd nga nuyuwanteeg sa morom yéenante jàmm loolu dafay faar bakkaar faqus jëlal muqtanisan di aji fexeel nga jël lii ma la wax jëm koo jëm koo jariñoo fàggu ko hmm, mel ni ku doon rëbbi xam ko te xool mbir yi boo bëggee sa bakkaar di faaru taamiru shaxsin ak dundal jëmm ramadaana weeru koor sawmu ak xoor weeru koor boo xooree weeru koor mu faar sa bakkaar waaye boo dundalee weeru koor bi ci jëf ci yu baax ak yàlla santaane moytu ci yu bon mu faar sa mu faar sa bakkaar wa qaayimun aji naafila fii ci weeru koor yum xaa danañ faar jurmahu bakkaaram naafila weeru koor it dafay tax sa bakkaar faaru xajjun ak aj dafay faar bakkaar wa umratun ak umra dafay faar bakkaar وسيرو صدقه اك سرخ guñ دا فاي فار بكار من حل مال واي مو جيجي ci alal جو دغان نياما باخنا دنگا تلك صدقه nga tilka sadaqa boobu la sarax nga sarax nga jëlee ko ci alal ju dagan dafay faar bàkkaar mu ne sarax boobu moo di sarax su baax a baax a baax dégg nga taalimu sibiyatin ak jàngal ay xale dafay faar bàkkaar salaatu safi ak jullit mbooloo dafay far bakkaar fa kullu zaaka yooyu yëpp zakaroo tudd nañ ko fi suxuf fi ci téere yi yii yëpp tudd nañ ko ci téere yi ne dafay far bakkaar dégg nga su ko defee yii yëpp benn bu nekk rek mën ngaa mën nga ci am hadis bu jógee ci yonent bi sallallahu alayhi waaye danañ firiwaat ruuxul adab bi ci firi bi nga xam ne ni dégg nga mm, macha allah euh, sëriñ sëriñ bu mag bi cheikh abdoulaye cheikh wuldu abdoulaye tidiane dégg nga mahamad wuldu abdoulaye tidiane naar boobu moo ko defar moom sharaxaat na rul adab dañ ko dañ ko firiwaat ak sharaxam yii yëpp andi na ko andi na xadis yi su ko defee danañ ko indiwaat foofu moo tax jëruñ ñu koy guddal fii waa ka jàppal aafaatun ay gàkk-gàkk tuqas yi yoo xam ne danañu waral xalba xol ba mu la waxee yii faat sa bakkaar ba nga jege yàlla mu ngi lay wax nag gàkk-gàkk yi nga xam ne dafay wowal sa xol mu ne xubbu riasati bëgg njiit ashaddu moo gën a tat ayiban ci ayib ayib gi gën a bon mooy bëgg njiit bëgg njiit mooy ayib bi gën a bon dafay rey xol ndax soo bëggee njiit yow looy jiital rek ci ngay dox doo defati te yàlla tax doo waxat te yàlla tax na nga nekk ci kaw rek da nga añaan da nga soxor def lu ne ndax jiite rek yàlla incha allah musal masxun ak mboosóor gu bëri dafay rey xol mooy reetaan gu bari ak kaf gu bari dafay rey xol mboosóor bu tuutee dara nekku ci waaye bu bëree rey xol waxiibatun ak jëw bu bëree rey xol xol bu dee nag mooy xol boo xam ne du fàttaliku yàlla du jàq ngir bàkkaar yi mu nekkee dégg nga dégg nga bu xol woowee bët wow borom loo mën a wax ci yàlla du jooy ndax xolam ci boppam moo wow loo mën a wax ci yàlla du dugg ci xol ba ndax xol bi dafa wow jëli su suuy ak xarit bu bon xarit bu bon dafay wow xol ndax nit ku nekk ci diine xaritam lay nekk kon booy ànd ak na nga ànd ku baax foxsun ak jëf ju ñaaw namimatun ak rambaaj wanaf su suuyin ak bakkan bu bon borom bakkan boo xam ne ni daf bakkanam lu bon rek la koy digal lu bon rek lay def kooku it xolam dafay wow kaza nako noon xawa naf si bànneexu bakkan falaata tamit bul ko topp ndax boo ko toppee mu wowal sa xol bakkan lu wuuteeg li yàlla santaane rek lay digal saa yoo koy topp rek yaa ngi mooy yàlla moom dafa yàlla yàlla lu bu la yàlla ne julli mu ne mu ne nelawal bu julli soo toppee bakkan boobu bu yàggee sa xol wow wasat na nga dëddu fi dunaa ci àdduna bilaa tata boy bul ko topp bul xiir ci àdduna nga xam ne say ngatu ak sa dal yëpp xam àdduna goo xam ne ni bisee ñëw rek nga won ko fi gannaaw mm, dégg nga mm, daal di xam ne ndek jarutoon dara bul xiir ci àdduna boobu boo xiiree ci àdduna sa xol bi mujj wow àddina daal yàlla daf ko wax liggéeyal ñi may liggéeyal ñi liggéeyal nga sonal leen loo ko am am bis dina ñëw nga bàyyi ko fi bu dee ay kër la woon ñu génnee la ca daal di la takk yeew la yóbbu la ba ci àll ba gas daal suul oto yi yëpp dafay tournewaat lépp nga bàyyi ko fi kon bu ci xiir ndax du dara xarit la buy xore xarit la buy wane gannaaw bul xiir ci wut ko wutal yàlla rek ndax loolu moo lay lay jariñ boo xëyee ci àddina àddina wala gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne boo bëggee yàlla bëgg la na nga dëddu àddina boo bëggee nit ñi bëgg la nag <clears throat> bàyyi leen lañ yor kon bàyyi li nit yor te bokk ak ñoom la nga yor te wan gannaaw àddina ndax yàlla man laa bëgg bu lool loolu sa xol wow ku nekkal xil sa baytin di taqoog sa néeg deel taqoo sa néeg waxtasil berul kullal waraa mboolee mbindee fii la tastatib bul neexlu ak xaawiran ay waxtaan wala du caagan werante yow del bëri looy wéet del bëri looy beru nit ñi ndax borom maqaam waxoon na wala tuksiran nal wasla la maamu laqatun xeyru waasili bul bëri looy jokkoo ku ne ndax ku yokkat ñaareel mooy ku bëri lu muy jokkoo boo jaxasoog nit ñi ñu fàttaloo la yàlla fàttaloo la dund yàlla ak yëg yàlla dugal la seen bëgg-bëgg yooyu te mooy xiir ci àdduna ak jëw ak jaxase ak bañante ak noonowante yooyu rek ngay gis ci ñoom ñu ëpp ci mbindee fi yàlla wax na ne walaakinna aksara naasi lil haqqi kaarihuun ñu bëri dañoo bañ dëgg ñu bëri ci nit ñi ñii ne faasiquun lañ laa yuminuuna gëmuñ ay kàccoor lañ gëmuñ kon su ko defee del bëri looy beru ndax beru googu mën naa tax sa xol aju ci yàlla nga miin wéet ak sa borom ak wéetali ko yàlla boobu toujours del nekk sa kër bul bëri looy génn ci bitti waaye del bëri looy beru lu may na nga nekk koo xam ne boo génnul làmbaay ñaay ñaaw ndax yaay jàngal li ñu yare ñu jubbanti wala ngay koo xam ne soxla nga sa sëriñ kooku moom mënoo ko béru bul neexlu ay waxtaan ak i werante ba mm, bañ a beru beru gi na la gënal ndax waxtaan yooyu ak werante yooyu dafay wowal sa xol rek waaye beru gi ak xalaat ci yàlla dafay tooyal sa xol waxut da nga gëm mu tarfan bët an ayubi naasi ci ayubu nit ñi wala tax fulan na nga sàgganaanum si ñoom bi kulli basin ci lépp bon gëmmal sa bët bul xool ayibu nit ñi lépp lu bon na nga fexe ba bëgg a teg doomi aadama yi ndax yow si ayibu bopp dooy na la te bëggoo ko la teg lu bon kon bul ko teg keneen te sa daq na nga sarax al maalaalal li wajhillaahi ngir jëmm yàlla dégg nga zur na nga ziyaare xabru muslimin xabru julit bilaa taraahin ci lu du doyadi <laughs> ci lu du doyadi maanaam ci lu du jeex del ziyaare rek del sarax alal ngir yàlla ndax li nga gën a bëgg boo ko joxee joxe nga ko ci loo xam ne nii moo la gënal nit du jël lu mu bëgg di ko joxe eh, ci lu bëggut boo jëlee li nga bëgg muy alal joxe ko rek ngir yàlla dafa fekk yàlla la gënal alal jooju moom moo tax loolu mandargaay gëm yàlla la dee ko def te sulul dara sax day yokk sa alal del ziyaare xabru jullit dana la fàttali ne kii de man ak moom ñoo fi nekkoon démb tey mu ngi nii tëdd na tekk xaw ma lu mu nekkee nga mën a góor góorlu xam ne yow foofu rek mooy sa kër kër waaye bàmmeel yi rek ñooy kër ya nañ fexe dundal bàmmeel yi waaye ràppal àddina bu wala bu bu loolu ñuy dundal ñaar waaye bis boo dundalee àddina ràppal bàmmeel xam nga ne doo nangoo mukk jugee ci àddina bi nga dundal dem ci bàmmeel bi nga xam ne da nga koo ràppal ñu bëri buñ bañee dee parce que dañoo dundal seen àddina ràppal seen àllaaxira moo tax duñ bëgg a jugee fuy dund dem fu ràpp waaye boo dundaloon àllaaxira ràppal àddina xam nga ne yaa ngi ne ngéej fu ràpp dem fuy dund laa taxlifan bul gëñ illaa ida xayyataa lu mooy nga tënk ko alal machiati si coobare yàlla mata harafta saa yoo gëñee bul gëñ mukk lu may wax nga inchaa allah saa yoo gëñee na nga wax inchaa allah dégg nga bul gëñ ta waxoo inchaa allah wala taqulanna li cheyin inni failun dalika gadan illa an yasha allah yàlla dafa ne bul wax ne suba danaa def dara lu may mu soob yàlla ndax lu neexul yàlla du am nasihatul ixwaani laay biir mbokk yi alaxtisaarin ci gàttal misla ahlil aani kem ñoon jamono ji fi aani fi aamil isneeni ci atam ñaar wa arbain ak ñeen fukk baada salaasa asarata gannaaw fukk ak ñett ma inaa ci téeméer téere bii nga xam ne mooy laay biir mbokk yi jeex na dama koo gàttal nag ndax jamono ji bëgguñ lu gudd bu guddee mën nañ koo bañ a jàng waaye mu ngi jeex ci atam 1342 moom lay wax ne ñeen fukk ak ñaar gannaaw fukk ak ñett ci téeméer dégg nga xam nga fukki téeméer mooy junni mooy mille nga teg si ñett yi trois cent nga teg si quarante deux muy mille trois cent quarante deux sa maytu tuddee naa zannas ma bi la way bi ruuxil adab ci teg ruuxub teggin li maa xawaa ngir lam làq min xikamin ci xam-xam yu am njëriñ wa adabin ak ay teggin montagere maa ngi ngant nangulu ngant maa ngi sàkku ngant inde zawil albaabi ci borom xel yi ومنشدا ما نغي سد قول فتل اندابي وخي ndawal penc ma te mooy borom laxdari ba mu taalifee sullam ci mantiq mantiq daf ne wali bani ihda wa ishrina sana maziratun maqbulatun mustaxsana wali bani ihda wa ishrina ñeel na doomi ñaar fukk ak benn sanatan ci at maziratun ngant maqbulatun buñ nangu mustaxsana buñ rafetlu comme ñaar fukk at ak benn borom sullam dafa waxoon ne bu taalifee téere boo ci gisee ay war koo nangul ngant war koo rafetlu ndax xam ne ndaw la lu def lii dëgg-dëgg jàmbaar la moom it loolu rek wax ndax ba muy taalif téere bi wax nañ ne loolu la am ci ayaat fan fan yàlla nga jëriñ bisa nas mi ci bi la way jamial muminina mbooleem way gëm yàlla yi yaa rabbana yow suñu borom bi jaahi xayril mursalina si darajaay ki gën ci mbindeef yi wajaanu yàlla nga ko def xaalisan mu aji sell li waji ki ñeel sa jëmm alkarima ju tedd ji alkarima ju tedd ji yaa rabbi yow sama borom yaa latiifu yow mi ñeewenti jaamam rahmaanu yow mi yërëm ñëpp rahim yow mi yërëm ñoras neex ci àllaaxira yàlla na téere bi nekk lu sell ngir sa jëm rek wala yaxuran ka bu mu la nax bi na nay mi ci mokkal way wi kaw ni nekk gi ma nekk saxiran di ndaw fii bilaadil ajami ci réewu ajam ya mu ne nekk gi ma nekk xale dëkk ci réewu ajam ya juddoo tey bañu seen gi nga xam ne fu gën a sori ci saalum dégg nga mu ne loolu bu la nax ba ba doo mokkal sama way wi loolu de dégg nga jamono wane na ko ndax nekk na koo xam ne tasaaroo na ci àdduna lépp kon xam nga ne woyam jar naa mukkal fallaaw yàlla yaxtasu dana jagleel bi fadliñ ci ngëneel man yuridu ku ko neex mu ne ndax yàlla mooy xool ku ko neex mu jox ko ngëneel kon jéemala mokkal woy wi te jëriñoo ko ndax njëriñam ci wallaahu yàlla zul fadli mooy borom ngëneel al azim bi aji màgg wal murid mooy aji namm lu ko neex yàlla mooy nga ngëneel lu màgg li te lu ko neexin moo koy def kon lim def ci jaam bi nangu rek moo si topp waaye kii xale la du def lu baax loolu amul fenn xale yàlla mën na koo may lu mu mayul mag ña kat xaala wax na fi asal majaari ci bile lef maanaam bile yoon al am jëdu ki gën a tedd xadimu taaha liggéeykatu yonent bi al maaliki yu koy këju ngiram malik ahmadu te muy ahmad bamba ne farey sa nekkul yug si buddi fàggaloo sawaadul jismi ñuul ak yaram balaadatal fata duul ak ascam wasu alfahmi ak ñàkk dégg Cheikh Ahmad Bamba nee na nit ki yaramam bu ñuul boobu du tax xel mi gàtt du tax mu gàtt dégg-dégg bon dégg-dégg déedéet nit mën naa ñuul fekk xel mu rëy la yore waaye dégg-dégg bu ñëw la yore kon nekk bi ma nekk xale ñuul kukk bu mu la nax yaa rabbi yow sama borom yaa rabbi yow sama borom bi jaayil haadi ci dara jaay yonent bi aji gindi fokk fa yàlla nga fekk annaas ñun charra kulli kulli aadi ayu képp kuy jàggati di tooñ mun na yàlla nga xewal naa naa si ñun bi kamaalin arfaani ci mataxam yàlla وكل مرغوب اغلب لن قمم بخير عدنان سي درجه يونت بي گن سي دومي عدنان يالا غني ماي خم يالا واي لپ لن بگر يالا غني كو انديل فستور يالا غ سترال عيوبنا سني ايب بستريك سترال جميل بعد رفت وقهر يالا غ نوت عدونا سني نون بقهرك سنوتر الجليل بعد مغ سني نون يالا غ كو نوت سنوتر لو ري لولو واي يالا غ سترال سايب سني ايب ci sa sutura su rafet soosu walhamdu cant lillaahi ñeel na yàlla allazi yàlla mi nga xam ne xat awlaa joxe na tey siira nazmi yombal sama woy foofu moom nee ma baax naal moo laa borom ba yàlla mi yombal woy maa ngi koy sant mooy borom bu baax su ma salaat topp xewal ma taslimi salaami ànd ak salmalëb jàmm ala nabi yàlla nekk si yonent bi al Mustafa wala boog ma taslimi salaami ànd ak salmalëb yàlla parce que yàlla turam yi salaam ci la bokk ala nabi yàlla nekk ci yonent bi al Mustafa kañ tànn xëyri anaami ki gën ci mbindéef yi alay yàlla na yàlla julli ci moom sëlmal ci moom wal aali ak ñoñam wa sax bi ak ay saxaabaam al abraari ña baax ñi ma faaza feeg mu ngi texe bil arfaani ci xam yàlla kullu sabbaari bépp muñaakoon feeg muñ kat mu ngi xam yàlla rek yàlla na yàlla ci yonent bi ak ki ñoñam mu jàngal na ne xam yàlla foo mu ànd ak muñ waaye ku muñut mënul xam yàlla إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما سيرين كوتي بسم الله الرحمن الرحيم جاي خلنا نكوتي الحمد لله رب العالمين لتنجب سي الله لتدنج سي قات خم قمر أجي واحد جرام يا الله نجم نجي قلوم مبولم جمت قوة خمنا أمنا تي فيلم تيري بي نرون فيلم ويروه أدب يا الله نجم نجي قلو ياكم تيكي تي يا ياك تيكين تي أم ياك هرما تي أم ak manqué te gi ci am lépp yàlla nga ñu ko jéggal yàlla yàlla nga ko def muy téere boo xam ni firi mi dafa nekk firi mu sell ñeel sa jëmm ju tedd ji yàlla yàlla bu ci dugal ngistal yàlla bu ci dugal rëy yàlla bu ci dëggal dugal lu gërëm loo wut yàlla bu ci dugal leneen lu dul yow yàlla nekk téere boo xam ne ni darañ dem ba tëdd suñu bàmmeel tiyaaba gi dañuy fekk ci foofu yàlla mën nga loolu yàlla nga ko def jëf ji yàlla bu mu dagg yàlla bu mu niin yàlla nga ko boole suñu misaanu xasanaat yàlla nga ñu tàggat ubbil ñu xam-xam bunti xam-xam yi ak bunti dégg ba mboole mi yeneen téere ci topp tam aju ci pay bi bàyyi firi ko ñu mën koo bàyyi bind ko ñu mën koo firi firi mu dëppoog sa ngërmande firi mu dëppoog njub bi jaahi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mën nga doo yàlla nga ko def yàlla ci barke bu adab yàlla nga def naataange si rew mi yàlla nga def jàmm ci réew mi yàlla nga ñu may njub yàlla nga ñu may ragal yàlla yàlla nga ñu boole ci akaabiru aarifina yi ba ñi ëpp ñi gën a xam yàlla yàlla nga ñu ci boole yàlla yàlla nga ñu boole ci jaam yi nga xam ne jaam yi nga sopp lañ jaam yi nga gërëm yàlla yàlla nga ñu rey ci gëm yàlla yàlla nga ñu musal ci kéeféer yàlla nga ñu musal ci kàccoor yàlla nga ñu musal ci tooñ yàlla nga ñu musal ci bew yàlla nga ñu musal ci xol bu bon yàlla nga ñu musal ci réer yàlla nga ñu musal ci ayib yàlla nga ñu musal ci lépp loo gërëm mu dew yàlla yàlla nga soril suñu digganteeg mooy yàlla yi yàlla nga soril suñu digganteeg ñaawteef yi yàlla nga soril suñu diggante ak natt yi comme ni nga soralee diggante penk xarf yàlla nga ñu jegaleel topp yàlla yi yàlla nga ñu jegaleel bëgg yàlla yàlla nga ñu jegaleel jaamu yàlla yàlla nga ñu jegaleel xewal yi comme ni nga jegalee sa diggante ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla mën nga doon yàlla nañ ko defal in uridu lil islam astantu ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh yàlla yàlla bul fàtte suñuy waajur yàlla bul fàtte suñuy waajur lépp luñ la ñaan rek yàlla nga ko ful këm seen ma na defal leen ko والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته